mo ganduɗa galle cheikh oumar fouty heeɓi ɗum e galle oɗo woni uh, alaji malik eɗen gandi uh, uh, ceerno oumar fouty kanko wadnomo annoncé kanko tottimo oɗo tariha o wi min ɗo kadmi ɗo oɗo garowo o continta ɗum so allah jaaɓi donc ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa machallah donc ko hol woni woni premier impression ma d' abord par rapport e ça alhamdoulillah ko adi foof yettude allah mhm. e nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam e weltaade kadi ne hawrude e ooɗo ñalawma e anndinde on khalifa général amir al muminina ceerno mouhamadoul bachir muntaga taha gonɗo to e amérique e o sahaa jooni haqqille makko fof nan ɗo e galle alhaji malik e ko waɗetee ɗo ko wonno so neɗɗo wi seydi alhaji malik tan haali cheikh oumar mo ganduɗa cheikh oumar kañum haalimo guila taw omo alamul arwah o arani ga e aduna taw haali garal makko e holko jogori wonde so ari o helɗo heedanta julɓe ɓe ɗum waɗi nde ñalawma o waɗi nde tan ɓesgu cheikh oumar foof hakkille mum ne oɗo ñalawma e andude jowitiɗo e cheikh oumar so mawninama ha mawni ko cheikh oumar mawni jiyowo cheikh oumar no woni lampa e cheikh oumar so huɓɓi ko cheikh oumar yiyete ɗon ɗum waɗi mi yiyani hay hunde so wona ko cheikh oumar mawninteɗo tawde ko goto e jokkiɓe e cheikh oumar mawninte surtout poɗɗo no seydi alhaji malik ni ɗum woni pérection ko min dillini min addi min e yamirore khalifa o mm -hmm. omo yamiri kala kono dilla e diine he e ko jokkere en ɗam e woyo min daro hen ɗum waɗi nde ɗum waɗi nde tan min gari min kawri hen ewa mbokkee xarit yi comme ni ma ko waxee sànq ñuy toog ak suñu sëriñ di Thierno Nourou Tall mi nga xamante ne tey moo fi teewal xalif général Thierno Mouhamadoul Bachir Tall ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax baax Seydi Tall alors fii ci Tivaouane donc bu ñu nee centenaire Seydi Hadj Malick bu ñu nee Alaaji Malick ak la famille omarienne loolu c'est une trop longue histoire ñu ngi koy wax sànq ci pulaar xam nañ ne euh, fan yëpp euh, wala tout le temps da koy dégg li nga xam ne mooy histoire bi nga xamante ne euh, bi Cheikh Omar Foutiyou Tall taxawee daal di tàllal sër ba ne doomu borom sër bi fii ma yem ci tarixa bi moo koy tàmbali maanaam moom annoncé woon na Alaaji Malick balaa muy ñëw

sant yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ndigalu amiral muminina Thierno Mouhamadul Bachir xalifatu Cheikh Umarul Fouti ayadahu llahu wa nasara mooy ndigalam mooy lëpp lu xew ci diine ak lu rafetal jikku ak tarixa bi suñu ko yégee nañ ko ci teewal surtout nag li nga xam na ne lii buntu bi kër Seydi El Hadji wax ne ne bunt la ci këru Cheikh Oumarul Fouti euh, lu fi xew ku mu concerné rek waa kër Cheikh Oumarul Fouti la gën a concerné parce que buy Seydi Seydi Cheikh Oumarul Fouti du wax mbiru El booba ab Seydi El mu ngi ci alamul arwaax ñëwagul ci àddina mu wax mbiram jox ko cëram wax fu muy jaar wax su ñëwee nan lay nekk ci jamono wax ci wàllu tariixa bi moom la ko bàyyale moom ko ciy wuutu fii ci Sénégal yàlla defee ko noonu loolu nag su demee ba ngi xam ne ne mu am téeméeri at bu mu laxoo ñu koy màggal di ko fàttaliku yaakaar naa ne bés bi bésu waa kër Cheikh Oumar la te kër Seydi Alaji la buntu la pour dem ci kër Cheikh Oumarul Foutiyu soo seetee tey ci wàllu tarixa bi ñu jële ci Seydi Alaji Malick ñoom ñépp ci Sénégal soo ci dindee ku jë ci Seydi Alaji rek yaakaar naa ne lu ci des du bari waaw xanaa ku ñu tudd la ku ñu tuddul walla ku nëbbu boppam mhm. wante base bi fii la mhm. fa lillahi alhamdu kon nag fii su xewle ñépp ñoo war a ñëw waa kër Cheikh Oumar nag moo ci war a jiitu loolu moo tax nag suñu teewaay fii tey xam na ne bés bi bésu Cheikh Oumar la ñëw teewal fi njabootu Cheikh Oumarul Fuuti yu yëpp di ci bëgg nag ci teewaay bi alors euh, tey euh, ndaw ñi euh, ni ñu koy ne dëkk bi jaxasoo na tey lan la ñu mën a jàpp loo xam ne tey Cheikh Oumar wala El Hadj Malick tey ñaaxee nañ ko ndaw ñi pour ñu mën a nekk ci yoon boo xamante ne duñ ko rëccu. xel yi ñoo jaxasoo wante dëkk bi jaxasoowul ndaw yi yaakaar naa ku ci nekk am nga kilifa mhm. ku ci nekk am nga weeruwaay su xel yi jaxasoo nag dañuy war a dellu ci ñi nga xam ne ne ñooy mat xel yi mooy kilifa diine yi te yaakaar naa Sénégal ku ci nekk am nga kilifa su réew mi demee ba toll xel yi jaxasoo rekk dañu war a dellu ci kilifa yi ñu déglu kilifa yi lu kilifa yi wax kilifa diine yi lu ñu wax suñ ci tënkoo rekk jàmm am waaw nit ki nag tànk yaa ngi am kilifa doo juum soo amulee kilifa nag ci njuumte ngay dëkk ku am kilifa nag sa kilifa mun na juum wante yow doo juum wante yaakaar naa ne ku ci nekk nag senegaal jullit ya katolik yi yëpp am nañu kilifa su jaxasoo rek ñi nga xam ne ñoom la yàlla dénk réew mi nañu delloo kilifa yi wax ak ñoom su kilifa yi àddoo rek jàmm